bonsoir sama gars yi alors na ngeen def j'espère que yéen a ngi si jàmm alors man it maa ngi si jàmm dal leen jàmm seen seen like mobile votre chaîne de technologie tey ñu indi leen beneen astuce bi jëmaat si wàllum whatsapp ñu bàyyi leen gi ginnaaw publicité bi ñu ñëwaat. like mobile votre chaîne de technologie n'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo merci. alors sama gars yi dalee nag jàmm seen seen like mobile votre chaîne de technologie ñu lay ñaan bul fàtte bés bouton abonné bi aimé vidéo bi partagé ko ngeen ñuy gën a mën a indi ay astuce si li jëm si wàllum whatsapp ak téléphone te astuce bi la mooy naka ngay def boo envoyé kenn photo rek maam benn yoon moo xam photo bu mënti doon benn yoon dong la ko mën a vi tey loolu lañ leen andil euh, pour nga def ko nag da ngay dugg si sa whatsapp voilà léegi bu ñu duggee sa whatsapp ñoo xaatu suñu whatsapp tijjeeku Euh, voilà léegi suma whatsapp bi tijjee ko léegi like ma bi laa bëgg envoyé benn photo mais dama bëgg bu ma ko envoyé rek moo xam photo bu ma di doon moom ben yoon dëgg la ko mën a la ko mën a la ko mën a gis léegi ñu xool like mobile whatsapp like mobile euh, euh, like voilà léegi whatsapp like mobile ma ngi whatsapp like mobile dama ko bëgg envoyé benn photo mais photo bi dama bëgg bu ko xoolee benn yoon rek dootu ko mën a gisati léegi loolu la loolu naka lañ koy defee. voilà léegi ñu dugg si WhatsApp Live mobile léegi WhatsApp Live mobile mu ngi nii léegi Live mobile euh, dama ko bëggoon envoyé benn photo moo xam photo bu mënti doon nag léegi photo bi dama bëgg euh, moo xam nag looloo mais man dama bëgg Live mobile bu gisee sama photo bi moom benn yoon rek la ko mën a vi euh, te du nekk si gëlëreem du ko du ko du ko du ko mën a garder si whatsapp am léegi nan envoyé live mobile benn foto ñu xool voilà léegi attends voilà léegi nan nan envoyé live mobile benn foto voilà léegi ñu dugg si suñu galerie waaw léegi bu ñu duggee suñu galerie ñu xool photo bu ñu war a envoyé live mobile attends voilà léegi ñu dugg fi voilà. léegi ñu cliquer bi voilà léegi logo bi laa bëgg envoyé like mobile mais dama bëgg benn yoon dong laa bëgg mu gis ko dootu ko mën a gisati léegi pour nga def ko nag euh, boo xoolee si suuf côté yi fi ñuy envoyer da fa gis benn flèche mu defal la fi un léegi pour nga def like mobile photo bi benn yoon dong la ko mën a bii léegi bala nga ko envoyer un boobu da nga koy léegi ñu xool ñu cliquer xool voilà léegi boo ko cliquer automatiquement un bi day day day rom mën andi andi vert vert euh, voilà léegi ñu bës euh, léegi voilà léegi mu ngi nii léegi boo cliquer un bi day day day day vert pour nga xam ne activé ko moom benn la la ko mën a vu léegi euh, cliquer nañ un bi ba pare léegi day envoyé like mobile photo bi ñu xool ba xam léegi ñu envoyé ko voilà léegi ñu xaar mu recharge voilà léegi photo bi dem na si Like Mobile léegi dañuy dem xool whatsapp bu Like Mobile ba xam jot na ko walla jotagu ko léegi ñu dañuy génn xool whatsapp bu Like Mobile voilà léegi ñu xool whatsapp bu Like Mobile voilà léegi whatsapp bu ngi nii voilà léegi gis na ne moo ami envoyé na ma benn photo léegi. Euh, léegi dañuy dugg xool photo bi ba xam ban photo la ma envoyé mais photo bi benn doon nga ko mën a bii ma waxaat leen ko benn doon ko mën a gis dootu ko mën a gisaat wala léegi ñu cliquer si photo bi ma envoyé yaa photo bi léegi mu ngi ñëw na léegi damay xool photo bi ba xam photo bi lan la ak lan lan lan lan la ma envoyé mais foto bi ma waxal leen ko benn yoon dong ko mën a gis boo xasee gis dootoo ko gisaat wala léegi ñu cliquer photo bi xool voilà automatiquement gis naa ne Like Mobile dama envoyé euh, euh, du moins dama envoyé benn logo léegi logo bi benn yoon dong nga ko a gis léegi ñu retourné xool léegi léegi ñu génn voilà léegi ñu ñu dugal xool automatiquement gis nga photo bi def na ouvert fii fii ba abadan mënatoo indi photo bi mënatoo ko bés ba mu ñëw ak foo mën di dugg mënatoo bés ba mu ñëw te du des euh, whatsapp bi euh, du des si galerie bi léegi foto bi dem na def na ouvert mënatoo ko gisati voilà léegi la famille euh, lool lañ leen indiloon di lay ñaan nga bés bouton abonné bi aimé vidéo bi partagé ko ngir ñu gën a mën mën a indi ay astuces li jëm si wàllum whatsapp ak téléphone jaa ngeen jëf sama gaay Laye Mobile votre chaîne de technologie. N'oubliez pas de vous abonner vidéo. Merci.